طبيبي قريب هل سقامي تسمع salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna xam naa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme ni ko ni ñu ko lislaam jàngalee nga xam ne bu fi nit bàyyi ko dañuy wax ne ci yàlla la jóge ci yàlla la delluwaat Papa Demba yàlla mi ko fi indiwoon jëlaat na ko ñuy ñaanal yàlla yàlla yàlla sama borom jéggal ko xare ko àjjana si yëg na kawe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam axlu aar ñàkk nañu ku mag ku màgg koo xam ne yàgg na euh, bégal aar ndax Sénégal moom nii la da ngay dee da boo dee rek lañuy ñuy wax ci yow lu baax mais ku mel ni Papa Demba Fall mi euh, Sénégal amel na ko njukkal ndax yàgg na bégal képp koo xamante ne eh, kuy kuy kuy bége aar nga surtout théâtre vraiment ñàkk nañ ku mag ku màgg ku sell ñu koy ñaanal rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal képp koo xam ne rek eh, seetaan nga vidéo bi nga ñaanal ko ndax xëy na du ñàkk bis bégal na la wala mu bégal sa maam wala mu bégal sa pàpp wala mu bégal ku bokk ci yow donc moom bégal na ñëpp ci aar yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko xare ko àjjana firdawsi bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan nag suñu kilifa euh, réew mi ñuy bàyyi xel mag ñu mel nii lu ñu mën ci jàppale leen ñu jàppale leen bala ñoo faatu ndax kenn dëkku fi te ñëpp fiy jógee xam naa rek li ñu waxoon la ñuy waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waniltil muna ma baalu ayniki